président Macky Sall dafa taxawoon keroog bi nga xam ne Covid bi ñu ngi toll ci 23 mars 2020 Sénégal commencé am ay cas kaa yi bëriwutoon l'Europe 71 cas kese lañ tolloon mu taxaw ne waxtu wi garaaw na Sénégal toll na ci ay diggante yoo xam ne fokk ñëpp joxante yoxo pour que ñu jéem a génn ci Covid bi ñu nekk. ca la annoncé woon na dina def couvre-feu couvre-feu boo xam ne dina tàmbali 8 euh, bu jotee ci ngoon.

mom sax mu dem France 24 ne ah affaire bi tollu fo xamne waxatuma la sax couvre-feu bo xamne day dem rek ba ba commencer 6 h way dina ko tàmbali 18 h manam 6 h la koy tàmbali demati sax 8 h ci goudi ndax demat ba 7 h au lieu de 6 h ndax te xeyna situation bi tollu na foofu wax joju mu doon wax di grawal yefi ak yefi yi foog ne garaaw na Sénégal yëpp àndoon ci d'accord ak mom ñu tegee ni benn bop dañ dem ba ci biir seen jëfin soxal ko ba nga xamne tay ji yenn sénégalais sax dañuy am xel ñaar ndax feebar bi amna wala amul ndax makki dafa xëy rek ndax jamono ji nga xamne ñu ngi tollu ci ay junni junni ka ak nit ñi commencé dé bay tollu ci ay 40 nit ñu dé makki xeyna jël jàngalé kat yi nañ dem jàngale ji te xam ngeen bañ fa démé len fa fekk stigmatisation mu xiyat ba ca fajar ga ba ñi nit ñi di waaj dem ba tollu ci fuf mu tok ba xaji guddi ne ak sax légui bu kenn jàngalé ci lool yëpp da fay niru tâtonnement ak pilotage à vue wala boog freestyle freestyle biñ nekk di ko gérer dossier wu Covid bi boo ko boolee ak lañ waxoon ci dund bi ceeb bi ak meew mi ak suukar si ne dañ ko fexe ba askan bi jot ci nañ ko doxalee nga xam ne dafa mel ni ña ànd ak ñoom kese ci jot wala ña ca war a jot buñ ci waree jot kilo liibar la ñuy jot wala genn wàll liibar ña nga xam ne commandé nañ lañ commandé nañ foog ne la état commandé ak li nit ñi gis utee na tâtonnement bobu nek ci dem na ba nga xamné sénégalais sax dañu commencé bàyyi. li ci am moy lan faalewul feebar bi moy ay tapalé la ci indi akum càcc akum seddo akum jaxassé akum ratalé ba paré ñu ne dénn way Sénégal fi mu tollu jamono tay ji nit ñi tollu di wax ci ay waxu milliers de cas mu xey di tâtonner ak suñu école ak suñu dom yi ak doomu sénégalais yi laq domam yabal suñu dom ci yabal suñu dom yi ñu feebar yi suñ doomi yi feebar wal ko suñu maam yi ak suñu ñu ne ko ba 3 heures du matin xaw minuit mu ne légui mëna la nek ñu ne na ñu jël souf ci pasar passeré ko sàcc ko yaa dégg ba jox sax ay nit ñoo Sénégal loolu lañ ne mar mu ne il faut que nous mu taxaw wax Macky Sall ko Macky Sall son principal problème aujourd'hui moy ñun Sénégal mënul jaayanteeg ñun ay kësën-kësën parce que buñ ko nee lu Macron wax nga wax ko ci ngoon nga looloo waral muy am yenn yenn comportement yii taxaw di wax tâtonnement bi fii heure bi nangam nangama sangam sénégalais yëpp rendre nañ compte que ne gestion bi dara baaxu ci du début à la fin tâtonnement la commencement ba fin ak yàq ak jaxase ci commencement ba fin ñëpp nag ñëpp nag taxaw def seetlu bi looloo waral tey jii li xew ci mbiru littoral bi ñu wax ne du yoon te dinañ joindre les luy force fii ci réew mi ñu dajaloo pare ko xeex te jàpp nañ ne citoyen sénégalais responsable nañ responsable quoi xam ce su nekkee ne ibbi nañ jàkke yi ñu julli respecter distance ibbi nañ yenn lieux yi ñu mën julli respecter yenn distance yi kon citoyen sénégalais yi aussi war nañu mën respecter yenn distance yi sol sen masque taxaw wan Macky Sall ne ko nag lii duñ ko bàyyi mu